Abdoulaye Jam Rahmaani Jam Jam fo Jam Jam fo Laala Jam tey damay tekki beeri ragalu damay lamsal lamsal dafa jot nag ci réew la ñu ma ci tànn wax ñu topp ko te nag dem naa topp Amadou du balli Amadou Ba du wuyu Amadou Ba xamul suuj ko dee ma gën a xam gën ma ko gis kooku nag ku la jox nit jox la añ bu la nee di reer gëm ko Amadou Ba mooy suñu reer ñun Amadou Ba lañ gëm ndax kañ ko jox a dox ci réew mi nag Amadou Ba dañ ko xool ñun duñu ay nit rek nii rek déedéet dañu seetlu Amadou Ba muy nit ku yiw di nit ku baax kañu ko jox e mu woon sénégalais yépp ni mu bëggee réew yàlla gudd fan xam nga lan la dama ni Bassirou Diomaye Faye du bokk Karim Wade mooy dugg dañoo bëgg mu leer dañoo bëgg mu leer ndax Karim Wade ndax mos génn dëkk nag ci réew mi ku ko jiiñ violeur ndax Sénégal dañu ubbi suñuy bëti xool sénégalais yi laay waxal waxee ma assemblée rek sénégalais yi laay waxal dama ni ngeen ubbi seen bët yi ngeen xool ngeen xam ni suñu réew mii ndax ñii fi wàcc léegi war nañu yore suñu réew ñun bañuñu nag élection am kenn ku ci man ku mel ni man man kon ma xeexee damay gañe man gañe kat laa barke alxuraanu karim dama violent bi ngeen gis fii nii bii wax ngeen gis fii lii façon kanam ngeen gis fii ñuy yekk sénégalais yu bon sénégalais yëpp yeneen ci teg seen bopp violé nañ suñu doom yàq alal tas nañu réew mi saaga nañu baaxal ci réew mi kilifa diina képp baax ci réew mi ñii saaga nañ leen exposé laa wax maa wax exposé sooxal nañu réew mi Sénégalais yi yéen ñu ngi leen di xaar loolu nga nekk bokku leen Karim Wade nag ñun ñi ñoo taxaw ma na leer conseil constitution na leer Bassirou Diomaye Faye tànkatu àddina boobu ñu ne day jël réew mi eh bu may taxaw fii di ko wax damay lamsal laa wax damay lamsal réew maa ngi toj réew maa ngi toj ak feccum ginnaaw ndax lii rek ñu dee rek ku leen ay yéen yéen a leen wax ñu génn ñu dee eh dama ni Sénégal Amadou bu élection amee Amadou mooy candidat réew mi yëpp ka mooy sunu candidat ñun ñun ba ñu élection de ñun dañoo wóolu sunu mbër te ko ñu wóolu ko te Sénégal yëpp pare nañu nag Sénégal yëpp pare nañu nga xam ne seen violence seen seen seen seen bopp ngeen di néew yi di waxee xol yëpp réew mi a Abbas yow laay waxal kenn du leen fi kenn du leen voté réew mi barka Alquraanu Karim xam nga nag yow laay wax wax Sénégalais yaa ne leen man Coura Macky maa leen man du ma topp nit nañ leen di woteel Amadou Ba mooy sunu candidat. à notre collègue Cheikh Abdou Mbacké, suivi de Mouhamadou Lam. merci monsieur le président monsieur le président xam na sax da ngay nuyu yi li nga xamante ni moo ñu fi tey muy benn résolution boo xam ni groupe parlementaire liberté démocratie changement moo ko proposé ngir une enquête parlementaire sukkandiku ci règlement intérieur article 48 moom lañu ñu war a càmbar fii bi nga xamante ni maa ngi wax ci mbirum rapport bi lay jël si war encore ndax tey de journée bu leer bu bu war a leer bu askan war a xam li ñu indi lan la lan la si jublu ak ku jëpp monsieur le président assemblée nationale sama collègue député yi sama mbokk Sénégal yi ñu dégg assemblée nationale dafa bokk ci institution yoo xam ne ginnaaw président de la république topp di woote ay loi di contrôler ay loi de contrôler ko ko bëgg a xam wala bëgg ci doxalinu réew am na sañ-sañu teg ko ñu yaakaar naa ne kuréel goo xamante ni du am indépendance la am liberté la moo tax tey jii li ñu yoon may ñu def ko sukkandiku ci article 40 monsieur le président article am ko ñëw gën a leeral en tant que parlementaire bu ñu ko defee ñi nga xam ne leen di war a woo lan la leen ci yoon wax mooy bépp personne boo xamante ne yaa ngi ci réew mi nekk Sénégal bu la Assemblée nationale soxlaa da ngaa war a ñëw kon waa conseil constitutionnel dama leen di wax ni ñoom ci Sénégal lañ bokk. te conséquence ak googu noonu président la Assemblée nationale ñun ñoo leen di jox seen salaire parce que fii nañ ko tañu fayu ñooñu nga xamante ne tey ñooy juge yooyu monsieur le président président si ñaari juge pour ñu dem foofu noonu kon ñooñu tey bokk na suñu leen faloon bu ñu gisee nag loo xamante ni suñu collègue député yi suñu candidat Karim Meïssa Wade teg nañ ko loo xamante jàpp na ne jaaru si yoon ñu am ay war ko leeral ñëpp si war a ànd mais pas politique politicien man mii di wax a yow candidat laa woon te bokk naa ci candidat gënoon ci réew mi parce que doomu daar la mais malheureusement ñu éliminé ma sama candidature tey mënoon naa jóg def enquête parlementaire lu sama candidature mais damay bëgg di wax rek gis nga Karim Wade ku bañoon Ablaye Wade da nga bañ Karim Wade parce que kooku yàlla moo ko dogal Ablaye Wade da nga xeex ndax ñett bëgg na réew mi taalibe murid la liggéey na Sëñ Tuubaa ba am ngërëm Karim Wade yoon boobu la jaar ñi koy xeex ñëpp na du ñu ay murit il faut mu leer maa jël responsable boobu ñiy xeex Karim Wade du ñu ay murit dañoo bañ sañ Touba ndax tey Touba ni mu toll région de Diourbel amul candidat kooku yaakaar naa ne ci réew wurul mën am loolu nag il faut que askan wi bàyyi ko xel Serigne Touba kenn mënu ko xeex ba am si ndam Ablaye Wade li liggéey ñëpp xam nañu ko nañu li nga xam mooy enquête parlementaire ñu def récision wote ko pour que ñu leeral président de la république waxoon naa ko dafa am benn pouvoir exceptionnel boo xamante ni conseil moo ko may sukkandiku ci article cinquante deux moo ni ko bu fekkee dafa am crise constitutionnelle institution mooy dañoo war a tas assemblée tas conseil constitutionnel dàq élection yi un an couplé élection présidentielle ak élection législative kooku yoolu kooku kooku conseil moo ko may président de la république ndax tey ku ne xam na ni ñu ngi ci régime exceptionnel parce que la première fois bi ñu amee indépendance ba tey c'est la première fois assemblée nationale ñuy wote résolution di tuumaal ay siif yoo xamante ni ñoo war a joxe résultat yi ëllëg sama collègue yi nga xamante ni wax naa ko